يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي njabootug lislaam rawatina taalibey cheikhuna ahmadul xadim noo ngi amaan mbégte di toog ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la ak fàttaliku bis bi nga xamante ne bii moom la ñuy waajal te ndigal la bàyyi ko woon ci seex Muhammadul Fadal Mbàkke moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy guddi gi nga xamante ni bii moom la sun borom subhaanahu wa taala di wax ci alquran muy ndigal loo xam ne ci yàlla la bàyyi ko directement ñëw ci jaam yi ñu war koy dundal ci kaw suuf bis boobu nag mooy bi ñuy fàttaliku Serigne bu Bousso mi nga xam ne moo doon càmmiñul soxna Awa Bousso ak soxna Aminta Bousso wayjuru Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Serigne Mouhamadul Fadal fanaan fii dundal ko ba guddi gi jeex mu jox ko njaboot gi na leen nag bu mu laalati suuf loolu mooy li Cheikh Mouhamadul Mountakha ne turu yàlla wi bu laal suuf kalimatullahi al uliya loolu nag moo tax Serigne Alhaji Bousso xalifa Serigne Afi Bousso toog nii ànd ko ak njaboot gi yëpp ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci Serigne Abo Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke wàcc ci sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir ak mboolem njaboot gi yëpp jaar ci bàyyi sëriñ Mbusoobe mii xalifab sëriñ Mbusoobe nag jaar ci mbooleem buntu kër yi sëriñ Mbusoobe yëpp nag ak mbooleem buntu kër yi sëriñ Saabusa yëpp di woote bis boobu nag nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-benn lay doon ci weeru koor dëppoo ak guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar di amee fii nag ci bustaanul aarifin ñu toog nag ak njaboot gi fas ko yéenee woote danañ jox kaddu gi sëriñ As bu sa Thierno mi nga xamante ne bii mooy wax ci turu sëriñ Alhaaji mi ngi nii toog bu ñu noppee danañ jox kàddu gi Serigne Saliou Bousso mi nga xam ne conférence bu mag biñ ciy amal te muy jiitu bis bi ñi ngi ko duppee Serigne Seexu Bousso ma nga xam ne moo doon taawub Serigne Bousso be muy lu rafet moom la ñuy jox kàddu gi suñu noppee danañ jox Serigne Mourtala mi nga xam ne mooy wax ci turu fondation bi waaye waxaale programme bis bi. ñoo ngi leen di nuyu fii ci bustaanul aarifin di pencam Serigne Afia Bousso di leen di nuyu ci turu Serigne Alhaji Fadil Bousso. mi xalifab sëriñ Afia Bousso mu jox ñu ndigal ngir ndigal lum jóge jële moom itam ci ay kilifaam te ka ca jiitu mooy Seex Muhammadul Muntaqa xafizahullahu wa raahu jaar ci baay sëriñ Bousso ba ngaaj mi fi toogal maam sëriñ Bousso be ak maam saa Bousso itam njabootam gépp itam jaar ci sëriñ Abul Baraka Mbàkke mi xalifab Seex Muhammadul Fadal ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi xalifa sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ak waa kër sëriñ Touba yëpp rawatina boppi kër yi mu amaat euh, ndigal loo xamante ni luñ yeesalaat la ci jëmmam ji jaar ko ci itam njaboot gi nekk ci ronam muy waa kër sëriñ Afia Bousso muy bis bi Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke jagleloon sëriñ Afia Bousso muy ñaar fukki fan ak juróom-benn jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. ku guddi ñaar fukki fan juróom-benn jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wu nekk daan ci fàttaliku sëriñ Afia Bousso ñu di ko ci ñaanal loola nag moo dellusiwaat ñu fas seeni ko dundal fii nga xamante nii fi lañ ko daan dundalee mu ci woo ñëpp nag di ci woo waa kër xaadimu rasul yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ci woo mboolem taalibe yi ren nag mu ne daf cee am lu yees lu màggat lu màggat la ndax euh, doxak bokk ak rafetal ko mosu fee jóg lu yees la itam ngir dañoo bëgg a dundalaat loolee nga xamante ni moo daa euh, nekkoon ca mag ña di rogalaat ba fii muy diggante waa kër Serigne Afia ak magam yu baax ya ak rakkam ya magam yu baax yi nag buñ ko tuddee mën nañ caa njëkkee maam Cheikh Omar Bousso mi nga xam ne mooy taawu maam Serigne Bousso bi bis bii nag muy ndigal lii Cheikh Mamadou Fadal joxe woon ren jii nag mu tudde ko maam Cheikh Omar Bousso moomu di suñu maam ñii di wax ak ñëw ngir rafetalaat ak bokk ak doxaat ak bokk ak rafetal la rafetoon ak yeesalaat ko loola mi ngi ci woo ñëpp muy tàmbulee ko ci conférence bi nga xam ne mooy jiitu màggal gi buñ nee suba la màggal gi defe naa kon mi ngi tolloog guddik ñaar fukk ak juróom loolu lépp ba màggal gi jeex ñu jagleel ko maam Cheikh Omar Bousso moomu di ñaan yàlla li fi ñaan lépp itam nag li ñu fi jàng alquran ak xasida ak li ñu fi def ay bernde ak li ñu fi waxtaane nit ñu baax ñi sunu borom nangul ñu ko te bindal ci tuyaaba maam yooyu fi jaaroon yëpp nag mu ngi ñaan daal kon képp koo xamante ni kàddu gi yegg si na ci moom mu jàppale ko ci yooyu ñu daal dundalee bis bu màgg bu ne muy jàng alquranul karim jàng kasida def ay bernde def dikkurulaay ak salaatu ala nabi ak waxtaane jaar jaari ñu baax ñi mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn di séentu ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci ak jàmm te defee ko ni nga xamante ni kii digle woon màggal gi muy Seex Moodu Faadal ni la bëggoon ñu ciy màggale te yàlla nañ ci daje ak ak borom bi ak tawfiixam bañ defee ko ne mu ko bëggee woon sunu borom tam bindal ñu ci te tiyaabu jur jeex. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu. kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ci turu sunu kilifa sëriñ bu Bousso mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ seexu ak jawrinam sëriñ seexu Bousso Faati ci mboolem njabootuk sëriñ seexu gépp di jël nuyoo bi nag di ci jiital sunu kilifa sëriñ Alhaaji Fàllu Bousso mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ bu Bousso di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootuk sëriñ Afia yëpp sëriñ Ahmadou wax ne mi ngi am mbégte lool ci sunu bis bii nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy bisu sëriñ Afia te ma gëm ne bisu sëriñ Afia mooy bisu mboolem njabootuk sëriñ bu soobee gépp waaye itam mooy bisu mboolem njabootuk seexul xadim gépp kon bu fekkee bis boobu ñu ngi koy waajal am ci bis bu mag muy conférence bi nga xam ne dañ koy amal buñ ne suba la mu war a nekk ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi. di dëppoo ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril muy dimanche ñu jël bis boobu jagleel ko sëriñ Seexu sëriñ Ahmadou wax na ne sëriñ ji Fàllu lii mu def am nañ ci mbégte lool njabootug sëriñ Seexu itam ñoom ñëpp bég nañ ci ba tax na kon nee na mi ngi wax mbooleem fu njabootug sëriñ Seexu nekk moo xam ci réew mi la moo xam bitim réew mu xam ne bis bii sunu bis la buñ ci àggee ku ci nekk fépp fu waay nekk rek nga fexe ba teew ci bis bi lépp loo ci mën a jëfit nga jëf ko ci ndax dafa gëm ne bis bii nga xam ne moom la waa kër sëriñ Afia jël jagleel ko sëriñ Seexu nee day gisul mënta am mbégte mu gën a rëy moomu ndax ñëpp xamoon nañ diggante sëriñ Afia ak sëriñ Seexu lu mel nii nag bu amee ñu jël ko di yeesalaat mbokk gi muy lu am sa loolu mënuñu lu dul du ci bég lool di ci am mbégte lool di ñaanal sëriñ Alaaji Fàllu mi nga xam ne moo jiite njabootu sëriñ Afia sunu borom yàggal ko fi lool te wér njabootam gi nga xam ne itam ñoo nekk ci ginnaawam di taxaw liggéey bi ñoom itam yàlla na leen sunu borom kàttanal ba léegi ñu dëgmal ñu am ci lu kawe seen jort sëriñ bi daal wax na ne am na ci mbégte lool ba tax na daal mi ngi wax ne fépp fu njabootu sëriñ seexu ne moo xam taalibe la moo xam soppe la na jël bés bi def ko muy bisam fi mu ne nii daal li nga xam ne ci lañ nekk ñun fi ba bis ba di agsi suñu waajtaay lépp ci bis boobu képp lañ ko jëmale kon ñu ngi koy yëgal ñëpp di ko bàyyiloo xel ñëpp. salaamaaleykum wa kon ñu jël suñu kàddu rek sof ko ci kàddu kilifa yooyu di wax ci turu fondation Dialibatoul Marakhib bi nga xam ne moo lëkkale mboolem njabootu sëriñ Afia Bousso gépp góor ak jigéen di yëkkati suñu kàddu ci turu bi ci ndigalul sëriñ Alhaji Fadilu ak mboolem njabootu sëriñ Afia Bousso gépp di soññu njaboot gi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu farlu ci liggéey bi ca àndandoo jàpp ci bis bi gën a soññ seen bopp jigéen ñi it ngi ci jital soxna Astu Mbàkke mi nga xam ne naka jekk mooy jëwriñ ji ak ñi ko àndal ñëpp ci jigéen ñu ndaw ñi ñu ngi ciy jiital soxna May Mbacke mu ànd ci ak soxna maam Ja Buso ak soxna moom si El Hadj ak soxna maam Buso mu si El ak ñu topp seen ginnaaw yëpp ngir ñu farlu ci liggéey bi ànd ci ak kon ñi ngi koy ñi ngi leen ci soññ bu baax a baax bis bi nag niñ ko waxee mooy màggalu Sëriñ Afia Buso ci ndigal li bàyyi ko woon ci Seex Ahmadou Fadal ci ji incha allah rabbi ñu laytaayee ko bis boo xam ne ni mooy bisu conférence bi ñu jagleel ko Sëriñ Seexu Buso moom Sëriñ Buso bi kilifa yi fi wax léegi wax ko diggante sëriñ seexu ak sëriñ aafiya dafa doy sëkk waaye diggante jëflante bu rafet bu njabootu sëriñ seexu jëflante ak njabootu sëriñ aafiya yàgg lool loolu it jar na sëkk bis bi ñu jël tudde ko sëriñ aafiya kenn ku ne umpalewut ne taxawaay bu rafet bi nga xam ne njabootu sëriñ seexu amoon nañ ko bi nga xamee ne sëriñ Cerno Buso moo fi nekkoon nekk xalifa sëriñ Buso bi ñu jëflante boo xam ne def nañ ko fii seen diggante ak sëriñ Cerno loolu na njaboot gi yëpp jël ne bu ñu gisee lii dañu jël jël delloo ko cëru kër kon ñu ngi ko yëgal mbooleem daayira sëti sëriñ Buso bi yëpp ak sëti Serigne Saabuso yëpp ak mboolem daayira sëti eh, Mbàkke li tàmbalee ci njabootu Cheikh Mamadou Moustapha ba ci njabootu Cheikh Mamadou Mourtada ak njabootu Cheikhul Khadim ji jigéen yëpp tàmbalee ko soxna Fadja ba ko soxna ba soxna Maymuna ak mboolem daayira sëti Serigne Cheikh Serigne Touba yëpp ak mbokki aafe yëpp ak mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen ko yëgal ci di leen ci woo bu baax a baax bis bii kat mooy suñu dundal bis boobu ngir eh, ngir dundal ak mbokk waaye it ngir dindal ndigal loo xam ne ni Cheikh Mamadou Fadal moo ko joxoon sëriñ Afia ca an ca at mu njëkk ma ni ko ni ñu ko waxee mu defe ko joxe ndigal ñu def ko boobaag léegi ñu koy wéyal kon sëriñ bi nee na mi ngi sonn njaboot gi yëpp ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci biti dëkk bi ñu nekk ndakaaru soxna maam Fati bu sa ñoom nekk ndakaaru ak sëriñ Sam bu sa ñoom ak mboolem ñu fa nekkal ñi nekk ci bitim réew ci Italie ak ci Espagne ak France ak ci Angleterre ba ci Amérique ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ ngir ñu waajal màggal gi ci ànd bis bi Euh, ak taxawaay bi ñu ngi soññu taalibe yëpp nag ñu farlu ci liggéey bi incha allahu rabbi nañ ko baaxoo defee ajjuma ji nga xam ne moom bu ñu lay toxee ba bu suba ga lañ fas yéene taalibe yëpp dajal ànd ak sëñ baak sëñ bayang busu bàyyi faal ñoom sëñ sàmm busu jiitu ko ak sëñ baara busu ñu seetal barab bi euh, buub ko ba mu li ci war lépp def ñu nem ko kon nag ñu ngi koy yëgal ñëpp di ko yëgal président de la république monsieur Macky Sall ak premier ministre Mouhamadou Ba ak ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome di ko yëgal la ministre Gallo Ba nga xam ne mooy ministre dépendant bi di maire Mbacke ñu ngi koy yëgal bu baax a baax di ko yëgal it le ministre conseil si Abdoulaye Mbacke Gaynde Fatma di ko yëgal honorable député euh, Abdou Mbacke Ndaw di ko yëgal honorable député Makhtar Diop di ko yëgal it soxna Amy Mbacke nekk ci ministre euh, de ministre affaires étrangères waaye di ko yëgal Serigne Cheikh Thioro Mbacke di bokk ci kër gi di njaboot ci kër gi te it nag xaarut bañ woo ko rek mu jëm ci kër gi jëf na jëf ju rëy ànd ko ñu fas yéene ànd ak ñoom ci ànd ànd ak ñun ko yëgal ñëpp ko yëgal autorité locale yi maire bu Touba Abdou Lahad Ka ak préfet ak sous préfet ak ak sous préfet bu ak gouverneur bu région de Diourbel ñu ngi koy yëgal ñëpp incha allah rabbi dimanche ji incha allah rabbi lañ fas yéene def conférence bi bu guddee Serigne Ganna moom mooy def conférence bi délégation yëpp ñëw ñu ànd ak ñoom bu ñu xëyee ci bisu màggal gi dana danañ mottali njàngum alxuraan mi mottali njàngum xasida yi bernde ginnaaw buñ dogee ba noppi incha allahu rabbi def cérémonie religieuse bi ci 22 heures ginnaaw naafila buñ noppee sëriñ Xaadim Gueye mooy jàng ba ba set kon sëriñ bi mi ngi soññ ñëpp di soññ fondation Jaalibatul Maraaxib ak durus bi nga xam ne dañ ko daan def ci biir ci biir jàkk ji it ñu ngi koy sëriñ bi mi ngi koy fàttali di soññ mboolem fondation Jaalibatul Maraaxib góor ak jigéen mag ak ndaw di leen soññ ñëpp danañ ci rendre hommage it nag sëriñ Mamoor Mbàkke moom si Amadou Fadal di ci rendre hommage sëriñ Moodu Maadou Ñang moom ñooñu ku ne xam na ci njaboot waaye nag di ci fàttaliku bu baax di ci ñaanal sëriñ Alaaji Fadilu Bousso moom sëriñ Abdou Karim nga xam ne moom ci bis yi bis yi rek la fi jógee njaboot gi mu bokk moom lañ tuddee bis bi tey ñooñu ñëpp danañ leen fàttali leen ci ñaanal incha allah rabbi kon sëriñ bi mi ngi soññ ñëpp jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi fa tabarakallahu mate na woote bi moom bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn woote la boo xam ne képp koo xamante ne bi yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah alhaaji fàllu mu ngi lay yëgal bis bi ñëw na ba sa kër yëgal la bis bi ne la bésub lislaam na ñun ñëpp ñoo ko bokk bis la boo xam ne dañ ciy fàttaliku nitug yàlla koo xam ne dafay nekkoon di liggéeyal yàlla ba wuji yàlla sun borom bàyyeeku fi nag ak njaboot goo xam ne di ña ngi koy taxawu ngir jëmmi sun borom subhanahu wa taala bi sëriñ wootee taxawaay bu rafet bi nga xam ne amoon nañ ko ci mooy rôle bi ñu doon suyee ci taxawaay gina Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu la waxtaane yaakaar naa nag bokk yi loolu ku ko waxtaane yoon wépp danañ ci gis seen bopp ndax sëriñ bi kat wooteem bii li muy rëy rëy li ko yàlla dimbalee mooy képp ku mas a woote say bokka la gàntal Sëriñ Tuubaa nag ay bokkam ñoo ko nangul muy bokki kër ndeyam di bokki kër baayam kon nag loolee lu ñuy waxtaane loo am solo lay doon bis bi itam mooy bis bi nga ne sun borom ko fanaane dundal ba bët set sun la jéggal say bàkkaar muy guddi goo xam ne moo ko wax ne moo gën jaamu yàlla ak juróom-ñett fukki at yu tegal bis boobu la ñuy woote fii ci bustaanul ilaahi wa huwa arrahmaanu wa qaada lil amaanu alhamdulillahi ala alkitaabi maa alshafiici almudhibi alcitaabi